On dit Bravo Sénégal Ouais, il Sénégal Sénégal Sénégal Sénégal, ma frère, on dit. Bravo, félicitations. Félicitations, on a gama, on a gama, avocat, on a gama. Bravo, Sénégal. On a Sénégal, on a gama, on a gama, Sénégal. On

jàmm langal rek demal seti Cam Teranga Cham Teranga lépp loo xam ne dañu pièce oto yoo xam États-Unis Cham Teranga koy jëli dem indil Loko. ba nopi nak di dox ci location de voiture kep ko xamni ne da nga am soxla ci auto ñëwal mu louer le auto réparation automobile tôlerie mécanique peinture ah lepp nak by United States lu mu def rek États-Unis la Teranga ku ko xam xam ko New York xam ko ci États-Unis Cham Teranga vente d'assurance auto mutation dédouanement auto ñi ngi route de l'aéroport jano Ecobank bi nek Yoff numéro 77 102 44 55 ou le 77 695 14 14 the number of the office 33 865 28